mooy ngeen waxuma benn alhamdulilah waxuma alhamdulilah yow yaa war a alhamdulilah bi nga nekkulee sama kanam xoolal seetloowuma la man seetloowuma la ah géntuloo tus géntuloo dara da ngay wax lu la neex mais saa wuti leen métier wuti leen liggéey moo gën di yeewu suba teel di naxaate ba tëdd ah bul ma woote ah bul ma woote laa wax lii rek la ñuy def ku leen woo naa lan waxal alhamdulilah ne ko waxuma alhamdulilah ba pare couper sa téléphone ku leen woo tamit ne leen gañe ngeen couper leen seen téléphone nooy mën a gañe loo jéewul jéew moom pare di gañe loolu fu ñu ko teg ñu bëgg lu yomb ko faites très attention ñiy naxaate dañu bëri si dëkk bi leen attention voilà. allo. allo kookal la. palais. palais présidentiel oui. nag laa soxla woon na ah lu xew. yen nag foog ma wax ak yéen. Hmm. waaye xale yi ngeen bëgg a génne ci tali bi yéen yéen yéen yéen xoolaat ngeen ko. mais xale foofu du place am. fuy place am xale ci kër la war a nekk. waa léegi nag daara du kër ah. non waaye yéen tamit nag nag yéen nag yi xëy na da ngeen bëgg a yóbbu yoo man am ah yéen ñun ñii xale yi la am. yaa may dégg. waaw te it xale yi lépp lu war ci ñoom ñu ngi koy def. Hmm. ñu ngi leen di sombil bëccëg di leen euh, laaxal guddi. yaa may dégg hmm. ah waaye sax yéen yéen daal yéen man daal xaw ma yéen daal seen xel lu ci ne ah xale yii sama njaboot gii nga leen gis nii hmm. sama kër gi xale ya ma ci jàppale sama tabax bi yeggagul ma war ko pentiir xale yi ko fas yéenee pentiir ñetti jeeg laa yor ci kër gi ñett te fas yéenee ñeenteel dégg nga ah, te xale yi ñu ciy jàppale ah waaye yéen yéen yéen la ngir bëgg laa wax mais yow ah. exploitation ngay def eh wuy ma bàyyi sa loolu ngay wax laa dégg nga xalé yi kenn exploité wu len ñu ngi len di topoto témir la len daan laaj léegi wàññi nak ba di len laaj 300 ha ah lol lol lol lool na sax laaj ngeen dal la xalé yi de ku len fasini genn ci tali bi ci man ngeen sama kaw ngeen di jaar mom lol mom na leen ko xamal sauf ngeen ay yeen non mais ki comprendre quoi xalé yi mo tabax peinture mais xalé xalé la te xalé ci kër la wara ak nday ak Allô Allô, Wow. Oui. waaw kay foofu fan la kër njiitu réew oui palais présidentiel oui. waaw kay may ma rek may ma ma wax ak kii asu wal ma sa bàjjen ne ko maa ngi wax ak président waaw. Allô du président palais présidentiel. waaw kay may ma rek may ma rek comme li lu yombul moom boo ko amee fexeel ba bu ko dagg nag ndax li yombul eh Mor demal sa kër bàjjen kër Imam nga woo ko wool ma imaam woo ustaas yi ñoom ñëpp ñu ñëw wuy fii xam ne maa ngi wax ak président dama bëgg di nga gis mbooloo mi mais du président palais présidentiel la. kon kay jot naa président. ñii neexuñu waxal quoi woote woot Sénégal ay picc ay pingouin ay scorp ñëpp ay woote gaa ñëpp ñëpp ñëpp tout le monde non bizarre quoi yàq sa liggéey rek